alors tey fii la ñuy des ci ndakaaru ak bërëb boo xamante ne ñu bëri ñu daan jàngee ay Lamine Gueye ci mel ni Marcel ñoom miin nañ ko bu baax a baax Abdoulaye Diop maa ngi lay nuyu di la ziar Abdoulaye euh, fan nga ñuy yóbbu tey Abdoulaye ci de quoi est-il le nom waaw ñu ngi lay nuyu di la fay di nuyu ñi nekk ci plateau bi yëpp tey ñu ñëw ci beneen penc ci lébu yi euh, muy teeru Baye gi euh, xam naa dañuy dugg rek laaj ñi nga xam ne ñoom ñooy askan wi ñu wax ñu ci teeru Baye Sogui salaamaaleykum xam naa ñu ngi fekk eh, lébu yi <laughs> ñu ngi ci wàllu lakkum jën bi ak eh, ataay. Ah. Ah. na def grand. ñu ngi lay fay sama waa ji. ñu ñëw ci teeru Baye Sogui ndax mën nga ñu wax tur bi fu mu jógee. Oh, non teeru bi nag mënuma la wax nag fu mu jógee nag exact nag. loo xam ci Baye Sogui. waaw Baye Sogui nag ni ma ko xamee daal ak ni ma ko déggee maam histoire la daal. mais dégg naa daal si moom daal loo xam ne daal lu rafet la daal dégg naa daal mag mu nangu woon a liggéey la. yor gaalam fii daan fi tëmbee teer nii daan daan dooleem. jaajëf jaajëf euh, ñu ngi lay jaajëfal grand ça yaa ngi teeru Baye gi waaw nekk ci sa lakk yi. waaw xam naa da ñuy may sax après. waaw xam naa yow da doon laaj teeru Baye Sogui ndax xam nga fan la jóge non cosaanu teeru Baye Sogui moom comme yi fi nekk lu ñuy wax rek. man moom dama ñëw fekk fi tur beeg lépp daal. Mhm. noonu laa noonu laa noonu laa ko xamee daal mais amul leneen lu ma xam ci biir biir xanaa mag ñi histoire yi comme lu la ci expliquer lool rek mm. voilà laa ci mun a dégg loolu laa ci xam mm-hmm. waaw mais xamaantuma ci leneen jërëjëf kon xam naa dañuy euh, dox ba ci kanam rek euh, grand ça va naka yaa ngi ci teeru Baye Sogui ndax xam nga tur bi fan la jógee non tur bi moom manuma laa moom fu mu jógee mhm. waaw. ndax ñun moom ay mool lan dañoo ñëw pour nappa nii rek. jërëjëf kon euh, ni ngeen ko gisee rek ñu laaj ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci teeru Baye Sogui euh, ñu wax ñi rek li nga xam ne moom lañ ci dégg ci wàllu taarixu Baye Sogui comme dañuy dem rek euh, ci ki nga xam ne moom mooy Abdou Khadir Gueye mu wax ñu dëgg-dëgg histoire bi naka lañ ko nettalee. waaw laaj boobu nga laajtee ci teeru soo gi ci tefesu ndakaaru yi la bokk tefesu cosaan yi tefesu cosaan yi ndakaaru yi fukk ak ñaar la tolloo ak limu péncu ndakaaru yi teeru Baye Soogi ñu ngi ko dippee suñu maam Baye Soogi Ndooy Baye Soogi Ndooy nag kilifa la woon fii ci ndakaaru mu ngi dundoon au dix-septième siècle mu nekk mag bu am xam-xam yàlla may ko baatin mu faraloon di wéet di xalaat euh, ay toolam wax nañu ne mu ngi nekkoon fi palais présidentiel nekk tey foofu la toolam nekkoon mu doon euh, liggéey ci géej gi ci bërëb boobu ñuy wax tey teeru baay gi daan nañu wax nag ci jamono jooju moom xereñ téefam àggoon na ci amoon na soxnay jinne euh, taarix boobu nga xamante ne bàyyi na ko ci ndakaaru ci xereñam ci dëkk bi li buy dëkk ci bërëb bii bëre ak dëkk bi ba mën fee dëkk moom bokk na ci ñu liggéey liggéey boobu donc la fait toolam nekkoon foofa fi pale bi ne tefes gi nekkoon foofa mu njëkk a nekk mag buy jëfandikoo bërëb booba bokk na ci lu tax ñu dippeeku ko mbataar si bi ma nettali lii di chef de pencu doonoon chef de pencu Guy Salane surtout Baye Soogi Ndooy la soo demee Guy Salane ba tey am na fa ay turandoo yu bëri am na fa ay sët yu bëri mais ay ay njabootam da leen di fekk ci penc yëpp. kon xam naa dañ koy jaajëfal bu baax moom Abdou Khadir Gueye ginnaaw ba mu ñu indilee ay leeral ci li nga xam ni moom mooy teeru baay Baye Soogi mu wax rek ni bokk na ci li nga xam ni ci penc lébu yu la bokk ci juróom-ñaar kon xam naa loolu lañ leen indiloon tey di leen jox di daje ba beneen incha allah. merci beaucoup euh, merci Abdoulaye Diop euh, ci précision yooyu Mor ndax euh, xamoon nga yëf yi fu mu euh, jóge ndax certainement bu ñu waxee teeru rek dañuy xalaat tefes foo xam ne gaal yi dañ fay wàcc di indi ay jën ak yooyu. nit ñi loolu lañ doon xalaat. waaw moom de histoire bi xëy na ñu ko découvrir tey. Uh-huh. dinañ xam lan mooy bàyyi soog yi mais ci taarix dégg naa ñu ni maam soogi ndooy la tuddoon. maam Soogi Ndooy moom moo ñëwoon avant même colon yi di découvrir foofu noonu teeru bi moom dafa daan nekk di sol ay yére weex di wéetoog teeru bi ñoo naan da koy garde ñu bëri daal gisoon ni ku am mystique la ku xawoon euh, ragallu la comme euh, waaw lu xaw moom waaw comme li euh, Abdou Khadre Gaye wax ku amoon vraiment mysticisme la waaw amoon ay toolam mu ni fële ca disons palais présidentiel mais li gënoon yéeme mooy moom wéetaay bi mu doon nekkee toog ci euh, tefes gi noonu yor yëre yu weex ba ñu ni moom sax mooy garde euh, teeru bi maanaam fi ñuy tuddee léegi nii teeru Baye gi donc mu nekkoon ku yéeme je pense euh, ñu bëri jàng nañ ci parce que teeru soo Sogui dañ koy wax mais suñu curiosité àggul ci ñu xam kan moo doon Baye Sogui mm. waaw donc maam Sogui Ndoye la tuddoon dëkkoon fii dakaar walla euh, am waaw mënoon na sant gay nag xam naa ndooyeen yéen ko nangu ci gay nii rek. <laughs> voilà ñoo ko nangu ci yéen. voilà merci beaucoup Abdoulaye Diop pour cette découverte en tout cas. Hmm? Euh, justement ma ne résidence Grand Serigne de Dakar Abdoulaye Matar Diop. Hmm, côté boobu bu naan teeru Baye Sogui. ñu bëri looloo tax sax ñuy wax. teeru baay sax gisuma ak plan plage ah en benn ak nga xamante ni soo wut xale yi. Mm, xale yi comme yow waaw dañ fay daan voilà dañ fa daan nekk di fa pajax pajax yi les les dimanches. nga faa pajax pajax yi da yow <laughs> yow mii <laughs> Chérif daa mos a të. <laughs> merci Abdoulaye Diop ci découverte bi tey alors dañuy jàll ci page de pub ginnaaw si ñu dalal euh, Alaaji Daouda Mine ci jàngat bi.